صلى الله عليه وسلم ولقد رواه نسلة أخرى إن سدرة المنتخى موتق سنت باوقني فبات يسري وجبريل سرى معه فوق البراخ إلى أقصى النهاية وحنا فنين قد بات يسري وجبريل سرى معه فوق البراخ لما عن الورن بهما صلى الله عليه وسلم هذا فقرة من هنا أسرى bil jismi jëhraa bi laftiraayi xam nga oustaz Modou am na ñu doon wax ni yonent gi daa gént riñaan gi yonent bi daa gént riñaan gi ñii naan ruugee dem yàpp yaram wi demul sëñ Touba maa ngi wàcc sama dund ni yàpp yaram wi ak jëmm ji ñoo ànd yàpp yaram wi ak jëmm ji ak ruugi ñoo ànd guddi dem asamaan minha la amriya israul ilahu bihi bi ruuhi wal jismi laylan li samaawaati فبات يسري وجبريل سرى معه فوق البراق إلى أقصى النهايات والأنبياء وكل المرسلين معا تعلموا منه آداب العبادات واحترموه وخدموه وكرموه واستسلموه تواضعا وعزموه لقدرهم تتوادعوا واتي نانيو نيوم يننتي اذا عرفوا جامونا بنو خامي تي زيرزالم بيت المقدس رتبته واتي واي سيدنا محمد واتصرفوا ديف نانكو سين سانغ لقاو واخترفوا بالفضل وتقدمي مو گن مو جيتو وابتدروا نك يننتي اندو مرحبا نانكو مرحبا وسهل سوي لي بيان صلى الله عليه وسلم تي بيت المقدس وسهل وتادبي والبسري وتقرب لربه moo gën moo jiitu. moo gën moo jiitu sëñ Touba yonent yi nga xam ni ñooy ramu keroog bi ñu déggee am lisaanu xaal woowee Sayyiduna Muhammad e yow ramu ñiy ramu lañu jébbalu dooni géwélam di ko way wal kullu minhum saraa fii mahmadin issamia zikra safi sufa ma al aminil قد حاز فقر من أسرى أه. بالجسم جهرا بالافتراء أكرم بربي أه. أسرى بهبي ليلا لقرب مع البراي قد بات يسري قد بات يخرق التباع دافنا نخط خط ديلي أسماني قد بات يسري min bëx di tuhri bokkul ak xat baata yasri wa jibrilu sara maahu xat baata yasri min ban di tuhri mu diima bisri fil anbiya i sural amini maal amini fawqal amini lasfiya yi kañ la ñëw sëñ Tuubaa mu ne ci guddi balaa fajar ñëw na këram fa aaba fii layli xablal fajri yaalamu ma xat kaana fii sarin za nafiyin aw isbaati summa li daarihin sana xat aaba layla ay saaliwu xaaral ay saaliwu xat faaxa zay la nee na mbiccum rasululaay li gën a suufe ci rasululaay mbicc mi xat faaxa zay la moo kawe yonent ya keroog oustaz Pape sallallahu alayhi wa sallam xam nga taxawal ma wax la dama la am lu ma la bëgg a tegal lu ma la bëgg a teqamtalal tuuti sëñ Tuubaa nee na radiyallahu anhu xat xaddamuuhu ñoom yonent yee jiital na ñu ni kañ sëñ Tuubaa mu ne is ba ñu saafoonteeg nga keroog ba ku nekk di yëg ci kaw minbar bi di wax di sant yàlla li mu la defal ba bàyyi Fatima yéeg ak Ibrahima Maria mu yéegee ci tribune bi wax ba ca catal wax ja ca baytul muqaddas xool yonent yëpp ne hamdan hamdan liman jaalani rahmatan lil alamina la sukk ci suuf ni ko yaay sunu sëriñ xat xaddamuhu kañ sëñ Bamba mu ne is واحترموه مي ريسبي ذوي النهاية je suis au garde à vous mais respect yonent yëpp a ko wax doo Saliou loo jël ñan sëñ Bamba mu ni zawit ni xaar yee gën ci ñi yàlla sàkk waaye doomi Abdoulaye seen kilif salla alayhi llaahu sëñ kii may wax bi muy doon li mu doon takk garaat yi am daraja yi kii ñuy wooye maamam pareegul moo ngi ci diggante ban beeg ndox bi hazal qadimu hazal aminu min al mawla nubuwatuhu xitman wa aadamu fii salsaali xatlu bi daa nubuwatuhu xablal baraaya xadin jalat lahu shaqu xiinal jaddu fittini yuxsanu la anta allazi ontita xidman nubuwatan wa aadamu baynal maa i wattini yéen jëli ca muqaddimaat bi nga waxoon oustaz Mbour waxuma jërë ngeen jëf